Euh, ñu dikkoon di la laaj ñu ne na Sénégal yàqu yu bëri na trop ci dëkk bi su ma manifestation jotee naka na gisee loolu noonu waaye loolu ñaawlu ko rek ko rek bu ndax loo xamante ne lii sa alal seen alal la ñun ñun li ñu bëgg ci Sénégal def dañ faa àggagul depuis Senghor ba léegi ñun suñu sañoon Sénégal avancé ba mel ni réewu tubaab bi loolu bu ko defee nag defu leen dara ndax ci alalu réew mi di yàq loolu moom baaxul loolu moom baaxul. mbirum yàq nag yàlla dafa dogal ni moom baaxul parce que lépp luy delloo ginnaaw réew jàpp naa ne baaxul parce que ñun on est beaucoup de problème kon li ñu def nañu yokk suñu bopp problème rek en plus que réew daa am ñu doxal. réew dafa am lu koy doxal parce que booy jug di yàq lii yëpp xaaj yëpp ànd ak seen soxla en plus que ñu seen xol leen topp en ñeneen ñi tamit xëy na ma riirandoo moo leen yóbbu day gis su waay nante ñu ngi dañoo sàngu rek mais nelawuñu rek buñ jëloon décision yàq suba suba suba yàq parce que boo yàq buñ leen loo xam ne tey jii nii war naa mën a dañoo am euh, ñi yàq nañu ñi yàq yàq nañu dëgg la li ñuy yàq xaaj yëpp suñu alal mais am na yoo xam tamit suñu alal la te li nga xam ne nekkul si àll jooju dañu fay ñëw liggéey pour taaral suñu dëkk kon seen normal waruñu ko yàq ku yàq alalu jàmbur nag ku yàq sa alal nag boo bëggee dégg dëgg du bàyyi alalu jàmbur ginnaaw suñu alal lañ ah, kon alalu jàmbur bu ñu fa fekk su waay doo doy. li nga xam ne mooy sa alal nga yaakaar ko muy sa teraanga boo wëlbati ko di ko yàq loolu du defar kii yàq li ma ko faral di wax démb rek maa ngi ci doon waxtaan ma ne ki nga xam ne mooy yàq du mos a defar. yaa ngi dégg te loo yàq tamit ñàkk nga ko kon nag ala kulli alin war na nañoo mën a seet Sénégal li koy doxal ñu di ko def te li koy e, gàllankoor wala mu koy deltoo ginnaaw ñu bàyyi ko loo mer-mer wala nga am jafe-jafe-jafe li ko neneen lu dul ay ñëw di taal wala ngay yàq wala ngay sànni ay xeer yaa ngi parce que fii lu ñu fi toj ñun ñoo ko moom suñu alal la yaa ngi mu ngi mel ni nga nga nga bay ba ba loolu jot rek nga ñëw taal ko jël almet sànni ca loolu am na njëriñ wala amul njëriñ man de sama xalaat mooy que ne yàqu-yàqu bi moom yàqu-yàqe nañ ko tegee na le te jéem a xool liy doxal Sénégal ñu di ko def. te loolu li ñuy def tamit suñ bopp dong lañ ko def parce que li ñuy yàq ak li ñuy taal ñun ñoo ko moom Macky Sall moomu ko Sonko moomu ko keneen ak keneen moomu ko muy yow ak sa morom ak keneen ñun ñëpp ñoo si ko yam te boo xoolee bii yi taal fii ñaata yoon nga dem Dakar. bii si fajal la say soxla bari na ñaata lañ si taal osan yi tamit noonu station yi noonu li ñu def nii jofuñu ko magi def suñu bopp lañ koy def yaa ngi dégg affaire ay troisième mandat ak affaire Sonko gi ah jërul ñu siy taal dëkk bi ñu ngi suñuy quarante mu ngi suñu poos ah élection jotee nañ dem voté ji ñu neex am ah, jàpp na ne ah, loolu pañ ah, nag ñi xam ne mooy maire bi déedéet loolu euh, comme ni ma la ko waxee rek fajul dara yàq rek lay yàq moom kii yàq nee naa la du defar te loo yàq tamit ñàkk nga kon nag yàq amul benn njëriñ. déggoo ma li ma la la la mer mooy noonu borom boo meree doo doon contrôle sa bopp doo amati sago booy lu ñuy def man comprendre ñenn yi ay xol rafet lañ yor ñenn yi ay baaxal la ñu nangoo liggéey buñ sañoon duñ yàq. mais dafa am ñoo xam ne dañoo sonn suwaay yoruñu lu ñu dundee ñoom ñooy provoqué sa yàq yi parce que ñoom ñu bëgg di di fajaale seen soxla dëgg duñu ay bandi ay moo leen jàpp fii bandi amut wóy amut bandi léegi wóy kenn da doole amuñu xaalis amuñu kër amuñu oto duñu ay bandi mënuñu leen traité baax lañ ñi ñuy wax bànni ko si demoon kër ndeyam ak baayam baayam bu doonul imam ma ngay topp si imam mooy nayem bi wala waxtu ko fàtt si jàkk ji kon fii bandi amu fi ñu nga ñoom ñu si kaw ñoom ñooy bandi parce que lépp lu fi xam ne ñoo ko fiy def ñaawteef ñoo ko fiy def yàq bi daa fañ mer da ngay gën a mer rek de parce que boo xoolee li ñuy yàq ñëpp su ñun lañ koy ñun lañ koy daggaat su ñun lay métti de magi du ko yëg doomam du ko yëg keneen ak keneen du ko yëg si ñun lay métti Sonko mii nga xamante ni sax si moo tax gars yi di yàqalaa du ko yëg lim am am na ko ba pare su ko neexee tëdd nelaw du ko wàññi dara ñu ñi nga xam ne yoruñu dara nag yoruñu tus ñooy nekk fii di waaye di suñu borom moo fi nekk nañ gëm suñu borom te jaamu ji yàlla dem liggéey comme ni ko mun Muntaxa Mbàkke suñu kilifa waxe liggéey jaamu yàlla loolu daal buñ ko defee maandu te doylu ah yemale suñu bëgg-bëgg yaakaar naa jafe-jafe dina wàññeeku senegal loolu doo nga ko mën a saafara du leneen waaye nag boo bëggee toll fii di séentu lële ah di dugg si loo xam ne nii sa yoon nekku ci sam leen alalu réew mi saasu jikko yi ngeen yore jikko xale day yaru xale day déglu mag waaw loolu daal mooy avancé réew mais gis nga ab dëkk bu ñii di gas ñii di suuf pël bi ñooy wuri rek mais pax du mu sax te dafa jot ñu war a wax bu ñu waxoon ñu dana bëgg loxo